dama dégg président utiliser ay mots yu xaw a fort ay criminalisation ay terrorisme euh, dem sax bone bi jox réew mi ay nit yoo xam ne dañu yee fitna ay nit yoo xam ne dañuy dañuy dañuy salfaañe dëkk bi et tout mais jàppaloo ci président la République également loolu xaw na dis au contraire il n'a fekk que décrire les situations li xew li xew yow université ku la yeewoon guddi di ko xelaat nga rafetlu ko mais c'est criminel c'est de la terreur terreur mooy utiliser violence pour des fins politiques loolu mooy terreur c'est de la terreur li xew ci liñ bëggoon def euh, fi ndox mi nekk Kër Momar Sarr fi courant bi nekk. mais loolu gars yi ils ont démenti ah. non yéen ci ndox mi ne ndox mi fu mu nekk nii mënu fa yegg. <laughs> yéen gars ah ñi ñi liggéey foofu. xam nga man ñi man man police laa dégg ñu wax. oui des forces de police qui ont parlé. que ni on a jeté même des cocktails molotov je fais foi à ma police ba keroog je vois le contraire comme ni ma lay nangulee nga gëm keneen loolu mooy démocratie. dama koy nangu mais li président wax man maa gis ci manifestation bi nit bu yor arme sama buntu kër ci fuul bi wallahi al azim ak koor gi ma koor. te du policier du nii. xaw ma parce que gisuma sol yére policier honnêtement xaw ma mais gis naa ko ci biir fuul bi mënuma wax kii la àndal mënuma kii mais j'ai constaté man maa gis ci mars deux mille vingt et bi nit ñi tiim Auchan génne ay fetel di tiire ci Auchan bi Auchan ba ku fa nekk. mais loolu nekkul ay conséquences aussi ci benn mbir. waaw waxuma conséquence de je suis dans le factuel li ma gis laa wax loolu nag su ma ko méngaleeg man miy def Sciences Po géopolitique du ma bett ndax insécurité mu ngi suñu buntu frontière ci benn réew bu sori bëgguma tooñ ba ñu tudd kon bu ñu demee yaa a des réseaux dormants y du terrorisme rax ci mbir yi dama koy gëm mais y a des nervis aussi consort euh, oui dans tous les bords y a des nervis ça c'est un problème qui interpelle tous les politiques xoolal wax ma ban politique moo amul bras armé. ñoom ñëpp am. ñun ñëpp ñoo war a taxaw sur ça c' est un problème que nous devons régler tous parce que soo ne nervi ñu joxoñ benn camp souvent nag nguur gi nekk la ñuy joxoñ bi fi parti socialiste nekkee y avait ce qu'on appelait tonton Macoute mhm. bi fi PDS nekkee y a ce qu'on appelle les tey bi fi président Macky Sall nekk ñu wax les marrons du feu mais même ñi nekk ci kujje gi bu ñuy dox ñi ñu àndal c' est pas des gens assermentés ay force de ay bras la ñuy jox ñu accompagner leen boo leen bëgg yow miy journaliste ñaata yoon la la euh, garde corps fël ak sa micro nga bëgg a interview benn kilifa. kon pour dire que c'est problème qui interpelle tout la classe politique. interpelle aussi état nit su demee ba nekk un homme public war nañ mën a organiser ban sécurité moo war a nekk ci wetam. am na yenn dimension yi bu ko même bu ko opposant nekkee état dafa war a mettre des services de sécurité à sa disposition. mais aussi ñuy réglementer loolu sinon lan moo fi am milice moo fi am moo am ci diine ji ñeme ko. bu ñu demee ba dégg mais su ñu demee ba dégg Abdou Karim Fofana mu naan ñooñu ay nit la ñu génn di protéger seen ay koñ ñu dégg président de la République mu toog ne maire jël leen ay matukaay pour mm-hmm. aar seen ay koñ mais loolu aussi également. boo may rek ma ñëw dama ne question de milice bi. dafa toog jéggi politique bi dem ba ci la religion xam nga nit sooy wax da ngay ñeme feebaru dëkk soo koy wax koy oser. problème mu milice boobu la ñu war a régler au Sénégal ñu ngi koy nëpp nëppee mu ngi ci diine ji vous n'osez pas le dire parce que say avez besoin d'être attaqué mais réew soo ko bëggee da nga ñeme dëgg dëgg rek am solo mu ngi ci politique bi nañ ci taxaw beneen bi protéger man bi ma li ma dégg ci président mu wax le président il recevait qui c'est pas des maires les maire ont le droit de police municipale pour man foofu lay waxee infrastructure yi nekk seen gox jël leen seen matukaay ba kenn bañ ko yàq parce que gis ni ñu def jàpp ma ni président Macky Sall mat dina mat di gu toll nii taxaw télé taxaw mu war a def une décision aussi historique naan ay def leen organiser leen en nervi ku ñëw ngeen dal ci koom jàpp ma loolu waxuma moo am de. man li ma jàpp laa wax ni c'est un chef de l'État qui a fait des réalisations avec sa décentralisation qui demande au maires qui ont le droit selon l'acte 3 d'assurer la police au niveau de leur commune ni laa ko jàppee. keneen ku jàppee ne nag ma nangul la keneen ku woote leneen aussi yaa ngi woo fitna. Mhm. te dëgg la dama d'accord ak moom. réew fitna du ko yor. ku yee fitna warul ci la lépp mën a amee ci ma mën ma a quelques jours bi ma ñëw aw ma ma aw. Mhm. yow sa doo si. kon fitna baaxul fenn baaxul sa ci kër barab bii ngay liggéey bu la borom defoon fitna nga démissionné dem feneen kon donc fitna ku yor fitna ku yee fitna du jiite. comme munti doon ak koo munti doon ci jàmm la ñuy jiitee ak koo munti doon ci jàmm la ñuy xeexee réew mooy démocratie jël ko boo ñëwee nga gérer sinon boo ko laajee sa ci fitna ñaare. Hmm. yi ñu seetlu dans l'histoire képp ku xeex ci fitna ba jot réew ñaare ci fitna nga yoree réew kon yàlla ñu yàlla musal ci fitna. mais est-ce li la en amoon euh, président Macky Sall actuellement aussi day mel ni moom la ñi ko bëgg a succéder aussi taxawaay boobu la ñu am kon est-ce que fitna boobu. aussi olof Ndiaye olof Ndiaye day hmm. faral di wax ni ku ñu sa bor nga mer. Hmm. la nga lebalee baax woon. man nekkoon porte ndaw ñi ànd ak Ablaye Wade la ma waxoon laa waxaat ba tey nit ak ah, nit kàddoom la am su ko wàccee moom la su ko jàppee moom la mënuma ko défendral kenn mais dem ba naan day dajale ay nit pour ñu dem déloger Ablaye Wade est-ce que loolu fitna gënu ko rëy dégg li ma la ku ko hmm. munti wax foo munti bokk jamono joo ko mën a waxee ànduma ci hmm. man ku ma xam-xam ne ànduma ci fitna ànduma ci woote fitna je me responsable je me veux démocrate. Mhm. je me pacifiste. képp ku tenir propos bu mën a yee fitna foo munti bokk je condamne at boo ko mën defee je condamne koo munti doon je condamne je crois que loolu leer na. Mhm. aussi aussi c' est des principes sur lesquels du ma ci wàcc far du tee même yow mi ma àndal président Pape Diop bu ko waxoon du ma ci ànd. duma ci ànd. parce que yaruma ci loolu nattable wu ci loolu maintenant nag nit mën na juum. bu gàgganti ko ñu jéggal ko parce que man mii daf may juum. yow da ngay juum keneen day juum mais yeefit na moom dem déloger président de la institution la. mu tudd Ablaye Wade mu tudd Macky Sall mu tudd moo tax ñi doon xas président Macky Sall yenn xas yi te bokkoon ak président Macky Sall doon xees yenn Ablaye yenn xas yi bokk ak président Macky Sall bu ñu xas président Macky Sall du ñu mun tontu. parce ñoom ñoo ko njëkk yow nag Ablaye Wade moo tax looy lebale na rafet looy lebal rek na rafet ndax fay ga rafet ok léegi euh, par rapport ak euh, président ci discours yi parce que keroog liir naa journal mel ni l'observateur mu xaw a mbir yi ba kenn xamul ci dara et puis suñu xoolee même l'image di première dame daf koy xaw a reflété gis nañ ko ci benn euh, anam bu xaw a difficile et tout aussi lan moo ko lan nga moo ko expliqué c'est un homme d'état le président a surpris tout son monde naa la man nii bokk ci kuréel pôle porte-parole la mouvance une heure avant maa ngi Petit pale en réunion pour préparer le débat sur le discours du président <laughs> yooyu ñu ci yàbbi premier ministre moom wax mën naa jum bu dee du secret parce que on en réunion que ni amaguñ aucune information sur l'orientation de la décision sur le mandat du président ñun ñëpp noonu lañ demee mais jàpp naa ni première dame jàpp naa ni war na ko yëpp mais xëy na aussi keroog décor boobu ku demoon. permanence su APR boobu nit mënu ko gis sa xol neex. ok des gens yu de de déclaration président Macky Sall bett. ñuy jooy di tuuri xéwal. consort première dame honnêtement jàpp ma ni aussi pour man sax war na bokk ci ñi gën a xelal la président parce que nag honnêtement. mosuma ko mosuma mosuma ko nuyu mosuma woo ma wuyu ko. seen naa ko dëju muy jaale ji Doudou Wade. laa ko séen mosuñu toog bokk jataay mais seede bi ma am ci moom honnêtement du jàpp ma ni kuy attaché wu ci pouvoir la seede bi ma am ci moom xaw ma ko de. damay màndu xaw ma ko. donc yaakaaru ma ni le pré au contraire kuy mbokk Macky Sall tu dois être fier du président Macky Sall. fan yii moom télé yëpp yoo taal moom la ñuy taal TikTok beeg yooyu yëpp gaa yi meroon sax. am nañu ci bëri ñu ci giif soo waxee ñu la Macky non Macky ngang la Macky ponkal la comme pour dire la réaction du première dame aussi pour man mhm. euh, c'est un peu mën na nekk aussi mu ñiimantal borom këram liggéey fukki at ak ñaar ci réew encore une fois encore que maa ngi déggoon ñu ni dans la mouvance présidentielle am na ñu ngarale woon mhm. donc des gens qui étaient dans une logique de trahir le président. Okay. autant d'éléments nag soo ko boolee xëy mën na jur peut-être sa réaction. ok tey euh, seen ëllëg ci par rapport ak coalition bi ngeen bokk mu di coalition Benno Bokk Yaakaar parce que parti socialiste tey convoqué nañu bureau euh, secrétariat national AFP également yëg leen ni mel est-ce que jàpp na ne on va tout droit vers cette dislocation ci boobule coalition.